mais mais suñu waxee lii waxuñu ko pour nit ñi ne le maire est en train de faire wala le conseil municipal li ma wax nii mooy li neex ci wax ji léegi nag dinaa wax li nga xam ne moo dul neex ci wax ji parce que ay nit bu ñu bokkee ay mbokk dañuy waxante dëgg ay mbokk dañuy waxante dëgg yenn population de Ziguinchor est-ce que vous pensez que man je suis un milliardaire wala un millionnaire Sénégal yëpp xam nañ ni amu awma ma xaalis su ma demee dem seeti ay nit te ñu ci ëpp sax duñu waa Ziguinchor wax leen sama yéene ne il faut ngeen jàpp ci ñooñu yëkkati seen alal dugal ci ba ñu mun a andi lii yëpp man en tant que maire de Ziguinchor su ma nee du ma jël salaire u mairie bi jël dërëm ci mairie Ziguinchor du salaire du carburant amul dara loo xam ne dama koy jël ci mairie Ziguinchor te lu ma am. du ma xaar mairie bi su amee problème damay def lan moo tax ngeen foog may def loolu est-ce jàpp ni jaay njomba njaaw la wala dama am lu lu bari est-ce que vous savez pourquoi je le ñaar moo tax ma def ko on s'écoute c'est très important ñaar moo tax ma koy def bu ci njëkk mooy. bu dee gënoo nit ñi gënoo leen ci juddu ëpp la leen jàng ëpp la leen alal waaye ñëw taxaw ne leen wóolu ma wóolu leen ma ñoom ñëpp daje wóolu la ne la yow la ñu dénk suñu mairie bi waruñu laa gën a gore ñu dem bi tax ma def ko ñaare bi tax ma def ko xam ngeen lan mooy nit ñi boo leen buggee yóbbu fenn da ngeen jiitu ci yoon bi nit ñi boo leen buggee yóbbu fen da nga war a njëkk wone yow exemple bi moo wax leen nag fan laa leen bëgg a yóbbu moo wax leen ce que j'attends est-ce que xam ngeen ce que j'attends est-ce que yéen gëm ngeen ni Ziguinchor loo koy defar sama va pas tomber du ciel d'accord nañu du ngeen xëy rek yàlla def nii rek Ziguinchor mel ni Paris on est d'accord lii defar Ziguinchor du état central moo koy defar d'accord nañu lii defar Ziguinchor du coopération décentralisée moo koy defar lan mooy defar Ziguinchor lan mooy defar Ziguinchor. J'ai pas entendu de. Ziguinchor. waa Ziguinchor. su ma nee waa Ziguinchor nag bu ci kenn xeeb boppam. yéen waa Ziguinchor ñun waa Ziguinchor ñun ñooy defar Ziguinchor. leneen buy jógee fële ñëw en complément. naka la ñuy defaree Ziguinchor. moi je suis le maire de Ziguinchor. je suis à la tête d'un conseil municipal. nee naa leen man yoruma sama poste. lu mën a defar tali Ziguinchor yëpp lu mën a defar espace public yi lu mën a defar école yi lu mën a defar poste de santé yi waaye loi daf ma may de am na loo xam ne dafa war a jóge ci Ziguinchor waa bu ne mu lu muy comp ci poosam joxe ko buñ ko dajalee moo ñuy permettre ñu am lu ñu liggéeyee bu leen kenn ndax de gis ngeen tubaab yi ñëw fii am nañu Évreux ville d'Évreux bi nekk France dañu am coopération ak ñoom actuellement ñi ngi tabax dara fii tuddee ko maison d'Évreux ñooñu lu ñu fi andi dërëm bu ñu fi andi seen contribuable yi seen citoyen ñoo fay seen impôt mu dugg seen budget conseil municipal voté ñu ne ah am nañ lu doy ba ëpp bàyyi ñu comp ci tuuti dem jox waa Ziguinchor lan moo tax waa Ziguinchor mënuñu comp ñoom seen bopp pour defaral seen bopp c'est extrêmement important parce que nag sénégalais dañu am jikko boo xam ne il faut ñu xoolaat ko mooy kenn ci ñun bëggul joxe li mu wax dëgg la bokk na ci loo xam ne moo tax sénégalais yi bugguñu joxe parce que question bi ñu war a laaj suñu bopp mooy pourquoi su dee sa village moo wootee nga joxe bu dee sa communauté moo wootee nga joxe bu dee daayira moo wootee nga joxe bu dee Euh, euh, église moo woote nga joxe mais bu dee état moo xam état central wala commune doo joxe parce que citoyen dañoo gëm ni li ñuy joxe gars yi dañ koy damm dugal seen poche dem dugal ko ci compte bancaire fii nag ñun li ñu leen wax ku soxlawul salaire mairie soxlawul carburant mairie du moom mooy jël impôt gi di ko yóbbu feneen te tant que je serai maire de Ziguinchor muy agent muy conseiller ku mu munti doon ku fi jël cinquante mille francs boo moom bu tribunal ba jël moo tax ma ne leen pour dalal seen xel xam ngeen li may xaar ci yéen li may xaar ci population de Ziguinchor budget deux milliards defarul Ziguinchor une ville de 46 kilomètres carrés 300 000 habitants 2 milliards mënul sax nettoyer les rues de Ziguinchor wax naa leen ni budget bi dama bëgg mu egg 5 milliards minimum pour mu egg 5 milliards il faut que chacun et chacune d'entre nous accepte di lamb poosam suñ ko nee fayal nga fay ma joxe ñaari exemple le receveur municipal bi ngi rey boppam temps yii dafa immobiliser Jakarta yi. il y a 7000 Jakarta à xam ngeen lu ñu laaj Jakarta cent 100 francs par jour Jakarta bu nekk lañ ko laaj ci commune bi moy 100 francs par jour loolu dafa bëri lan moo tax duñ ko fay te pourtant bëgg nañu daw ci tali yu baax ah bëgg nañu daw ci tali yu baax mais tali yooyu la ñuy fay ñoom ak keneen li muy fay la ñuy dajalee pour def tali. commerçant yi sama mbokk commerçant yi dinañu defar marché yi de wax nañ leen ci programme bi dinañ tabax ñaari marché yu bees marché au poisson fii Mbudoodi ak marché aux produits agricoles parce que bëggatuñu marché bu bi bii ñaanuñu ko yàlla waaye bés bu fi dala amoon lakk lu mel ni lakk njaaxum am marché boo xam ne bouche d'incendie sax gars yi dañ koo jaay def ko ay marché bi man naa ngi doog a xam ni amoon na parking parking yëpp dagg nañ ko def ko cantine loolu duñ ko nangu gouvernant bi ñuy wax dina fi jóge bu soobee yàlla waaye balaa ñu koy def dañoo bëgg a def ay mesures d'accompagnement moo tax ñu ne nañu njëkk a génne ci budget commune bi tabax ñaari marché yu bees waaye marché yi fi nekkoon te nekk situation bu doy waar moo xam Baneto ti leen visité ñaar ko keroog marché Goumel bi nga xam ne musul opérationnel marché ngelaw ñu defaraat ko bu marché yi baax bu boobaa nag dinañ ne commerçant yi marché bu kot lii moo ko xaj la fa xajul yépp dem leen ngeen déployé wu ci yeneen marché yi te yéen ñuy réclamer de bonnes conditions nee naa leen yéen a tax ñu ut oto yi bokk ngeen ci yéen a tax ñu commandé des des des des bacs à ordures yuy jógee Chine ñëw waaye lan moo waral. keroog wax naa ko ci conseil municipal parce que am ngeen des commerçants qui sont dans le conseil ñu ne waaw ñun dañuy harcelé da ngay ñëw rek ñu tëj sa magasin cinquante mille bi i faut nga fay ko cinquante mille toute l'année laaju ñu leen lu bëri de cinquante mille toute l'année ku ci amoon ngénte vendredi prochain génne huit cent mille nañu waxante dëgg kon li ñu bëgg ab réew waa réew ma ñoo koy tabax bu ay malaaka ñoo jógee asamaan ñëw tabax Ziguinchor le maire n'a pas des milliards dans sa pour faire le travail yéen yéenee jox maire bi li ngeen mën a exiger maire bi mooy na am gis-gis bu leer waaye na dugal xaalis bi fi a dugg te bu soobee yàlla ñun di dinañ ko def moo tax c'est ce qu'on attend de vous di wax nag ni soo gisee lu bëree ni ñuy ñi sawaruñu ci joxe wax nañu lu tax. waaye bokk na ci li tax tam nit ñi bëgguñ joxe mooy système bi dafa diis il faut ñu oyofal système bi lu ko mooy rek nit ñi dañuy ut ay système parallèle te fii si ngeen soor nag ñooy xalaat ces système parallèle ndax lu mel ni Touba ca kanam ku gis lu baax da nga naan lii baax na bu état meloon ni mu war a mel peut-être Touba ca kanam du am waaye dëkk ci dëkk yaraw ko màggee fa. chaque fois les mêmes problèmes su tawee ñu ne inondation ndox bu baax mënul am assainissement amul keroog bi ma demee màggal Touba ñu dem seeti ki nga xam ne mooy responsable moral Touba ca kanam sur plus de deux kilomètres une route bien goudronnée depuis foofu ba hôpital ba Touba ca kanam moo ko financé defar ko goudronné ko avec li mu war a am yëpp donc suñu naree continuer ñu ne service des impôts et domaines pour mu recouvrer impôts yi parce que seen procédure dafa diis receveur percepteur municipal quelle que soit sa volonté il a des problèmes on va lancer les mêmes systèmes que Touba Ca Kanam et d'ailleurs prochainement dinañu jël des jeunes des des femmes et des hommes fii à Ziguinchor yóbbu leen ñu dem xool modèle boobu càmbar ko bu baax ñu ñëw xool comment on peut le répliquer ici pour am ay résultat yu gaaw a gaaw a wax nañu tamit. ci li am solo ci li ñu dajale fii tey mooy économie sociale et solidaire muy un élément important du programme Burok dama bëgg ngeen xam ne cette partie du programme c'est pas seulement la commune de Ziguinchor monsieur le président du conseil départemental de Bignona wax na ko nous avons ici tous les présidents de conseil départementaux ñoom ñett ngi fi nous avons presque tous les maires de la région may rassurer tous les maires programme bi amul coloration politique l'essentiel des mairies suñu coalition moo ko gagné sur les trente nu mu tuuti tuuti gagné nañu les vingt deux ou les vingt mais dama ne bi ça n'a pas de coloration politique et c'est pourquoi Nous tendons la main à tous les maires, qu'ils soient de tel parti ou tel autre parti, ce n'est pas notre problème. Ici, nous avons le maire Ousmane Diata qui est le maire de Santiago Mandjak. Il a été élu sur une autre liste, parce que il est partie intégrante du programme du deuxième parti pour le mandat territorial. Pour les 30 communes de Ziguinchor, de la région de Ziguinchor, sous la supervision des trois départements ñoo ko war a piloter pour l'intérêt des populations de la région de Ziguinchor et c'est pourquoi ce programme est important Madame Diop Madame Aminata Diop defal nañu un excellent exposé defoon naa ko bi may présenter sama programme le jour d'aujourd'hui le plus important vous savez c'est quoi mun nga ne damaa bëgg a parce que le premier élément de la l'économie sociale et solidaire mooy fexe ba nit ñi nga encadrer leen ku xamul nu ñuy entreprendre soo ko joxee cent million tout de suite deux mois soo ko nee ana cent millions yi xamul fu mu dugg foo nga former ko à l'entrepreneuriat jox ko des outils de gestion de management des outils élémentaires de tenue de comptabilité moo tax ñu ne dañuy taxawal la couveuse d'entreprise nga xam ne mooy former ñu ne beneen bu am solo boo former nit ba pare nga koy doogal nag dinaa la jox financement on va commencer par des financement moyens waaye dañu fekk déjà mu am une base ces braves femmes là ce qu'elles font mais ñi soxlaatuñu formation xanaa peut-être mise à niveau rek di actualiser seen i connaissances mais man de tey su ma amoon deux cent millions jox leen léegi te xam naa ni dinañ ci jur loo xam ne dinañ ci liggéey loo xam ne sa sera l'équivalent de un milliard donc on a une base mais li ma ci gën a jaaxal mooy bis boo buggee liggéey ba xool yan association ñoo fi nekk di def liggéey ci n'as que des associations féminines où sont les hommes wanuñu ma benn association d'hommes buy def de la transformation de particulièrement nag la jeunesse man je du ma leen raay de parce que man du ma maire boo du ma politicien votel nga ma wala voteloo ma c'est pas mon problème li ma war a wax dinaa ko wax su ma jàppee di lii mooy dëgg les jeunes ou certains jeunes je vous parle en tant que grand frère ne le prenez pas mal am ni may waxee sama rakk ma bokkal ndeeg baay laay wax ak yéen parce que je vous veux bien xoolaat leen seen bopp toog ataaya dem nawetaan topp kankuran kankuran yi léegi sax depuis quand fii à Ziguinchor ñun on a dañ doon dugg ci àll bi dem uti. Euh, ay faara defar suñuy jax dem uti saak peinture def ci saak mais c'était strictement culturel ba kenn mus see rop kenn mus see gaañu maintenant Kankura bandi la ku nekk yor jaasi ngeen di jamante ba ay bakkan di ci rop loolu ban njëriñ la amal Ziguinchor nawetaan 12 mois sur 12 nawetaan nawet la après nit ñi dem liggéey kuy jàng jàng ku yow métier dem métier. gis ngeen li def la la différence entre les peuples mooy lan peuple bu la gën a avancé xoolal ban relation la am ak liggéey boo demoon dëkku tubaab bi boo demoon Allemagne wala nga dem Italie wala France wala nga dem États-Unis boo demoon dëkk asiatique yi demal Chine demal Japon tu te dis ñii est-ce que ay machine lañu wala ay nit lañu amuñu temps bu ñu toog tout le temps ñu ngi dox di liggéey fii rek ngay gis nit ñi ci grand place yi ñu teg ataaya boo waxee ñu ne grand bi dafa ñuy saboo daf ñuy xas ko dama bëgg ensemble ñu jël engagement changer nos mentalités parce que lépp du jóge ci état lépp du jóge ci commune am na loo xam ne ci yéen lay jóge ce que ces braves femmes font ñenn ñi seen yaay lañu dañ leen di bàyyi ci kër gi dem ñëwaat fekk leen ci kër gi dañoo bëgg on va se battre pour mettre en place des moyens pour yëkkati de l'argent pour constituer un capital bu ñu paree jeune bu bëgg a formation